أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala ñoo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ginnaaw loolu ñu ngi àndaat ak yéen ci téere yàlla subhanahu wa taala ba tey ñu toll ci suratul baqara ñuy jël tey benn aaya muy 282 muy aaya bi gën a gudd ci alquran atwalu aaya fi alquran aaya bi gudd gi mu gudd borom bi subhanahu wa taala daf ci jàngale ay mbir yoo xam ne dafa aaju ci sunu dund loolu moo tax mu ëmb fukki mbir ak benn yu ñu yàlla di jàngal ci benn aaya bi fukki mbir ak benn yu jullit yi war a jëfe ci aaya bi bi ci njëkk mooy wujubul kitaabati duyuun comme doomu aadama yi dañuy dund sunuy dund dañoo war a jëflante sunu biir dañoo war a demlante dañoo war a jokkalante kon am ñu mën am ñu mënul kon léeg-léeg ñi mënul danañ aajowoo ñi mën ci ñaan leen ci sàkku ci ñoom ndimbal léeg-léeg lépp daa di am borom bi nag dañuy jàngal bu ñu demee ba lépp di am moo xam ci njaay la sawaun kanat bayan xam njaay la aw shiraan wala jënd wala mu nekk xordan lépp wala mu nekk jokkalante loolu dañ ko war a bind ci këyit bu dee lépp la nañ ko bind bu dee njënd la na am facture suñ demee ba amuñu bindukaay wala kuy bind wala am na leneen lu borom bi subhanahu wa taala santaane gis ngeen kon dëgg-dëgg jullit yi war nañ xoolaa seen bopp jullit ñi am doxalin boo xam ne tëralin boo xam ne jógewul ci kenn ci yàlla la jóge yàlla di leen jàngal nu nuy dundee ci kaw suuf ba yàlla di ñu wax ne sunu mbiir sax sunu biir sunu problème ay jënd ak ay njaay ak ay leb nu ñu war a def kon est-ce que diine jiy wax ci loolu war na bàyyi lu gën a rëy lii kon est-ce que tey war nañu am problème waaye lan moo tax jullit yi am problème mooy li ñu sànni lii li ñu bañ a dégg waxu yàlla ji yàlla sant nu te xoola aaya bi moo gën a gudd ci alquran lu muy régler fukki mbir ak benn ñaareel mooy riayatu niam yi nit bu ko yàlla mayee xéewal daf ko war a sàmm nan la koy sàmmee mooy bi sukriha yàlla bu la mayee xéewal xéewal googu da nga ko war a sàmm noo ko war a sàmmee mooy nga koy sant foo toll di sant yàlla mu ne li qawlihi taala lil kaatibi kama allamahu llah nee na ci biir tafsir bi bu ñu ci ñëwee dinañ ko fekk benn aaya yàlla di wax ak kii bind ne ko yow danga war a sant yàlla yow mi bind lu tax kii bind war a sant yàlla mooy yàlla daf ko may xel may ko wér mu jàng ba mën a bind ba mën a nekk économiste wala mu nekk juge wala mu nekk jàngalekat wala mu nekk ba muy bind ak xelam li nga xam ne moom la nit ñi di dundee kooku war na sant yàlla ñaata nit ñoo nekk ci àddina bi te jànguñ mënuñu sax téye xalima da ngay gis ñoo xam ne dañ naan càmmoñ la ñuy signé mënuñu signé da ngay dem police nit di ut kayit ut carte d'identité wala na nga xam ne ñu ne ko signé mu ne mënu mënu signé dañu jël baaraam bi daal di koy tamponné parce que mënul signé place signature bi ñu def fa cachet baaraamam parce que mënul téye xalima xoola kon yow mi dund ba yàlla may la nga jàng moo xam nag loo mën a jàng yow war nga sant yàlla ndax borom bi nee na ki bind war na sant yàlla ndax yàlla moo ko may xam-xam bind yàlla xañ ko keneen kon war na sant yàlla loolu tamit dañ koy jàng ci aaya bi mu nekk sunu kanam ñetteel ci lu ñuy jële ci aaya bi mooy jawaasu niyaabati fil imlaa'i borom bi day jàngale ne ñaari nit a ngi nii yu war a séq benn mbir kii day leb kii day leble wala kii day liggéeylu kii day liggéey ñoom ñaar nañ ko bind su fekkee ñoom ñaar ñépp mënuñu bind borom bi nee na am na ku mën a wuutu ci ñoom ñaar seen place daal leen di bindal kon ñaari nit di jëflante ut ku leen bindal loolu dañ koy jàng ci aaya bi jawaasu niyaaba fil imla lu ko waral mu ne li ajzi anhu ndax kii leble wala kii kii leb dañoo am problème ñoom ñaar te dinañ gis njàngale borom bi subhanahu wa taala ci aaya bi kii leb bu ñu demee ba bind di am moom mooy bind su fekkee mënta bind mu ne ki koy wuutu bindal loolu nag laaj war na cee ama ñu laaj ñu ne waaw lan moo tax kii leb moom mooy bind su fekkee mënta bind ki koy wuutu di ko bindal mu koy wax bindal nangam walla bu fekkee ñaar yooyu amul ki ñëw di leen bindal ñoom ñaar ki leb moo naan bindal nangam laa leb lu tax lool kan mooy tontu ci lool lu tax lool loolu nañ bàyyi bañ ñëw ci aaya bi dañ bàyyi bañ ñëw ci aaya bi insha allah lu tax kuut laay mën na am ku la wuutu mën naa am mooy li ajzi anhu ndax waa ji dafa tële wa adami qudrati alayhi amul kàttan bi benn amul kàttanu bind bi wala amul kàttanu xam-xam bi wala amul capacité bi wala ci mbirum ci tolluwaayu intellectuel tollu ci mbirum xam-xam tollu fa kon léegi su boobaa mën nañu am ku leen wuutu ñoom ñaar ñeenteel ci liñ ciy jële mooy wujubul adl wal insaf fi kulli shay mbokk yi maandute yàlla daf kaa waral ci lépp lu mu mën a doon ci wàllu diine maandute même sax xolal yàlla nee na bu ngeen di xuloo wala ngeen di wax ak ahlul kitaab yi yi nga xam ne ay yahud lañ wala ay nasaraan wala sax am koo dëkkal te am lu dox seen diggante yàlla nee na maandu bu mu tax nga bañ a maandu ci ay mbiram bul bañ ko bu mu tax nga bañ a maandu ci ay mbiram laa yajrimannakum shana'aanu qawmin ala alla taadilu bañ ay nit bu mu tax ngeen bañ a maandu yenn saa yi nga gis nit ku bañ kenn rek lépp lu mu amoon ci lu baax nga dugal ko ci kawam loolu jaaduwul loolu kenn du ko def nit ki loo ko bañ bañ bañ bañ boo xamee mbaaxam waxal ko ko waaw bu ngeen séqee tamit ay problème waxal dëgg bi rek kenn du bañ nit sakk jëfam comme ni jigéen ñi def seeg sa jëkkër fanweeri at mosoo dem fenn ngeen am benn problème nga ni kii xawma ci moom ak mbaax kii mosumaa defal dara te fanweeri at yëpp yaa ngi lekk yaa ngi naan ngeen mosu laa defal dara fanweeri at a boo lekk loolu naan te kon dem nga bu yàgg kon doo fi yàgg loolu ak loolu baaxul loolu kenn du ko def kon yàlla dafa bëgg ñu maandu fi kulli shay ci lépp nag laa siyama fi kitaabati duyun rawatina nag bu ñu demee ba bind bor yi nan maandu yow mi bind maandul bul mànkeel bul ëppal bul fell bul wàññi bul ëppal liñ la wax ne la lii la bindal loolu al mustahiq li nga xam ne moo war bind ko al muajjal dat bi fan la tàmbalee fan la yem kañ la waa ji di delloo si nan la toll bind ko lépp nañ ko bind gis ngeen yàlla lim ñuy jàngal fekkoon ne tey ñu ngi jëflante ni ñu am problème mais duñ ko def mbokk yi juróomeel li ñuy jël ci aaya yi mooy wujub war al ishaad alal kitaabati li war mooy seede suñ koy bind na am ay seede na am seede xam nga tey ndeysaan gis nga suñ dund tey kenn ci ñun bu ñëwoon di leb benn waay nga ni ko waaw nañu nañu indi big bind bindukaay ñu indi seede rek waaye ñu ne lu waaw mais la la dalay mais la la xanaa nañ ko bàyyi rek nga ni waaw waaw waaw kon kon mais gis nga te yàlla moo ko wax yàlla ne nañ ko bind ne mee na am seede mais tey boo bëggee wut seede sax nga gis waa ji commencé di la mais lan la mais yow ah man sax maa ko def waaw mais wóoru lu ci dugal loolu li yàlla wax nañ ko def waaw yow yow yàlla moo la wóoluwul du man maa la wóoluwul de yàlla la yàlla moo la wóoluwul moo tax yàlla mu ne ko bind te yàlla moo la bind moo la xam ñaata nit moo fi ne xanaa wóolu wóoma après nga wóolu ko dafa mujj kon kay wóoroo woon yàlla li mu wax mooy dëgg lii xew ci la yàlla doon bañ ñaata nit ngeen fi dégg ñuy wax baat boobu te bu ñu demee ci biir loolu ñuy wax noonu amul kon yàlla moo wax dëgg mbokk yi isan yàlla nee na nañu ut ay seede li ta akkudihaa bi hii ngir ñu dëgëral mbir moomu bind nañ ko am na seede loolu nit mun koo weddi lu ñu bind ci kay mu am dat am lépp am ay signature ba pare mu am ay seede ñu ne diw mi ak diw fekke nañ ko ah loolu yow yow benn nit mënoo ko weddi loolu la yàlla subhanahu wa taala bëgg ci ñun benn li tax ñu bind ko am ay seede wa adamu nisyaani qadru dayni ñu bañ a fàtte dayu dayo tolluwaayu bor bi mën na bëri mën na yàgg suñ ko bindul mën nañ ko fàtte waaye yow sax yow yow ñaata nga ma yoreel yow mu ne non cent mille la fekk trois cent lool ah est-ce que wóor na ne ah yow bi sàngam waaw waaw waaw fekk du dëgg ñaata yoon ngay gis loolu wala joxoon naa la joxoo ma ku ko fekkee coow am mbir yooyu la yàlla di bañ suñu diggante kon nañ ko bind na am seede pour ñu bañ a fàtte dayo bor bi nu mu toll ak wa ajalihi kañ lañ ko war a fay waaw su weer bi dee weer bi dee téppéri di dem nga nekk fay indi ay problème juróom benneel mooy suhudul maali laa yaqilluuna an rajulayni adlayni min al ahraari almuslimin ñii seede alal buñ koy jëflante ci njënd ak njaay ci leb ak ak ak ñii seede bu ñu manqué ñaari góor fan ñu nekk ñaari góor adlay ni ñaari góor yu maandu ba pare ñu nekk ay gor ba pare ñu nekk ay mukallaf mesure waxuñu la rek nga dajeeg déedéet yàlla bi mu lay def loo daf laa joxoñ sooy wut ay seede ñaari góor yu maandu yu nekk ay gor yu nekk ay mukallaf nekk ay jullit encore ñaata charte la ci seede bi ah ñeent bi ci njëkk nañ nekk ay góor ñaar nanu maandu ñett nañ nekk ay gor ñeent juróom nañu mesure nañu mesure mu ne laa xayru su fekkee lii amul mënul nekk te yii mu yàlla wax yépp benn bu ci nekk da ngay xam ne looloo war a nekk mu ne bu fekkee amuñu ñaari góor wamra ataani ñaari jigéen ñaari jigéen ñaari jigéen ñooñu benn ñaari jigéen ñooñu ñooy taxaw taxawaayu benn góor kon bu ñu amee ñaari góor ñuy seede ñu dem dëkk boo xam ne amuñu ñaari góor kon ñaari jigéen lañu war a wut fekkee benn jigéen ñaari jigéen taxawaayu benn góor lañuy la ñuy taxaw kon lu ñuy taxaw gis ngeen lii yëpp waaw léegi nag ñun ñu ne ñun ñoo gën a baax yàlla yàlla wax ñu lii lépp ñun ñu teggi ko teg fële waa ji ñëw rek indi ay sentiment bon xam nga nangam nangam waaw nga ni ko ah waaw mais yàlla mu ne la non loolu jaru ko yow nga ne yaa ëpp yàlla yërmandi moo tax ku muy mujj si mais diw moo ma bett la xawla wala waaw est-ce que yow yaa bàyyi li yàlla wax ah te lii may leen di wax nii problème bor bi ngeen baal ma de ak bëri ci ñooñu ñu naan ay ibaadu ñuy leb te duñu fay ak bëri baal leen ma de ak ñu ci ñoo bëri di leb te duñu fay la ilaha illallah muhammad rasulullah te danger bi nekk ci bañ a fay bor xam ngeen ko jàng nañ ko de waaye ba pare bu ci gën a dangereux sax mooy ñoom ci seen bopp du nu bind ñoom ci seen bopp ñoo xam ne ñoo jàngaaye ak hadis yi du nu bind te sax boo ci waroon benn waaye kaa ñu bind su la rombete dootu la nuyu boo ci noon benn waaye kaa ñu bind ko mu ñëw ne la lebal ma nga ne ko waaw bismillah wool ma diw ak diw ñu seede mu ne bàyyi ko bàyyi ko ah naa yàlla ma ko wax de wala yàlla waxu ko kon nag li yàlla wax mooy dëgg ala yaalamu man xalaq wa huwa latiful xabir mbokk julit yi delloo suñu xel xam ne lii xar yi ak béy yeeg nag yi nag yi taxul mu wàcc lii julit yi ñoo ko moom moo tax yàlla bi muy wax lii waxul yaa ayyuhan naas waxul yaa qawm lan la wax yaa ayyuhal lazina aamanu atwalu aaya fil qur'an aaya bi moo gën a gudd ci alquran yàlla julli di la ci woo kon dundin la lii dundin la du lu ñuy jàng rek yaa ayyuhal lazina aamanu idaa tadaaya déedéet dañ koy dund koy dund koy dund du lu ñuy tajwid di jooy di déedéet dañ koy dund alquran bi mbokk yi sunu borom nee na juróom ñaareelu njàngin bi ma leen di wax ci aaya bi mooy alxirs ala kitaaba na ngeen xër na ngeen def waru gar na ngeen toppatoo ci bind bor tey ay nit a ngi àllaaxira yoreel ay nit ay milliards ay millions te nit ñi xamuñu ko te ñooñu ci biir bàmmeel dañuy am problème yowmal qiyaam dañuy am problème ay nit a ngi fi tey perte ay millions lu ko waral parce que binduñu ko woon ay nit perte nañ ay kër ay nit perte nañ lu ay matériel yu na gàññ lu ko waral parce que binduñu woon yàlla nee na nanu bind kon nanu bind wal azmu ala zalikam yàlla dane nañ ci dogu nañ ci dogu te di ko bind waaw dogu wal azmu ala zalik walaw kaana daynu sagiran taafihan même bu doon def ak néew sax yow mi leb bindal yow mi lebal bindal ndax yow yaa ko xeeb naan non téeméer laa ko yoreel téeméer téeméer ci yàlla lu garaaw la de boo ko yóbbaalee téeméer dinañ ñëw léegi ci xadis bu yonent bi alayhi salaatu wasalaam doon wax ci bor waa ji yore bor mbokk jullit yi lu mu néew néew néew néew néew lislaam nee nañu bind ko juróom-ñetteel alxirs fi adami kitaabati tijaara alxaadira alsila wasaman am na léeg-léeg nag suñuy jëflante loo xam ne mën nañ ko bañ a bind comme njaay waa jaa ngi nii taxaw jaay ma saabu téeméer la am mu jël saabu bi jox la loolu jarul bind yow miy jënd ak yow miy jaay am na foo xam ne jarul bind ci diggante yu ndaw yooyu da ngay joxe kii day jël yàlla nee na loolu moom mën naa bañ a ne nekk mais am na fu muy toll nag ci xaalis liy génn ah dañ koy bind daf ko ci këyit facture datu sàngam waxtu sàngam diw sàngam jënd na fi nàngam qualité bagage yi nàngam la somme bi nàngam la total bi nàngam la daal di signé nga jox ko xaalis bi mu dagg kayit gi jox la nga jox ko marchandise bi mu dem ëllëg ak si biir bu coow amee nga génne sa facture mu ne mu ngi nii waxtu sàngam la daa ko jox xaalis bi sàngam la woon matériel yi sàngam la woon qualité bi nàngam la woon yàlla kay lii yàlla moo nu ko wax mu ngi nii te peste yi ñuy wax yëpp yéen ñëpp gis ngeen teg ngeen seen bët problème am na ci yéen ñi toog fii yëpp kenn ku nekk dégg nga walla nga gis lii yàlla wax ñu ñu lànk bañ koo def li ñu yàlla wax am ci problème bi li ñu yàlla waxoon ne dina am am problème bi daal di am ñun ñëpp gis nañ ko walla ñu dégg ko kon nag li yàlla wax mbokk yi mooy dëgg yàlla moo xam ñun xamunu kon suñu yàlla rëddalee jëfe rek mbokk yi juróom ñaar juróom ñeenteel mooy wujubul ishaad alal bay il aqaaraat bu ñu demee bay jaay ay hectare suuf wala ñuy jaay ay tool wala ñuy jaay ay industrie ci loo xam ne mbir mu am solo la ah foog ay seede am foog bind am foog seede am ndax loolu du lu ndaw am du lu ndaw foog ay seede am foog bind am ndax hectare suuf xam ngeen ne du lu ndaw tey gis ngeen Sénégal daanaka loolu mooy fi histoire ah ay tool ay hectare ay industrie loolu li ko li ko waral mooy ñàkk a jaar fi yàlla wax fukkeel mooy xurmatul idraar bil kaatib wal shahid bu ñu demee aussi yàlla def ñaari nit di nu dimbali mooy ku ñuy bindal ak ñiy seede ñooñu nag bu leen lor nag bu leen lor nag ñoom dañoo ñëwoon rek di seede ngir yàlla xam ngeen ne tey Sénégal tolloon nañu waxtu wax ne bu ñu la ne yaay seede nga ni seede wu ma seede wu ma lu tax parce que da ngay dem police ñu ne la trapes yow seede bi seede bi ñibbi ne ma waaye pes bi ñu ma pes beneen yoon ne kuñ ne kaay seede mu ne seede lii fi mu demee pes biñ ko pes te xoolal yooyu xam nga tooñ la ki doon seede di seede dëgg ngir yàlla bu ko kenn lor di ko yóbbu place ba sori aussi di la yóbbu fii ba Cees ngay seede ji di la fitnaal ki doon bindu si ñu ne ko ñëwal yow yaa ko bindoon loolu tamit yàlla daf ñu koy tere bu ñu demee bay doxalante ci dëgg daal bu ñu sonal kii seede bu ñu sonal bindkat bi fukkeel ak benn mooy taqwallahi taala tusabbibul ilm ragal yàlla day jur xam-xam ku ragal yàlla yàlla xam yàlla may la xam-xam kan moo fi bëgg xam-xam ragalal yàlla boo ragalee yàlla yàlla may la xam-xam wattaqullah wa yuallimukumullah yàlla nee na ku ragal rek ma may la xam-xam lan lañ ko yàlla may waaye wa tuksibul maarifa ragal yàlla day tax nga am xam-xam nga am culture sa xam-xam yaatu waaw waaw yàlla day tax nga am xam-xam bu bëree bëree bëri subhanahu wa taala bismillahi taala kon mbokk jullit yi ci gàttal lii mooy sunu darsu tey ñu ñaan yàlla subhanahu wa taala mu dëgëral sunu làmmiñ ba du tarxiis أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ee yéen ñi gëm yàlla ku woote yàlla ñan lay woo ñi gëm lu mu leen di doyee mu ne isaata daayaantum bu ngeen di lebalante fekkee yéen a ngi jëflante ci wàllu leb ñu ne ah mu ne ilaa ajalin musamman mu jëm dikk bu ñu xam da ngeen di jëflante ci wàllu leb loolu ngeen di def nag lenn ci yéen ñooy labal ñeneen ñi fi shara wal bay ci ci njënd ak njaay wala ci joxalante wala ci leb nu ñuy def te loolu mu ngi jëm ilaa ajalin musamman ay waqtin muhaddad mu ngi jëm benn diir bu ñu limité waxtu buñ ne fii la aw shahr wala weer wala awaam lebal ma ba weer bi dee nañ ko bind lebal ma ba ba ñaari at yi jeex nañ ko bind lebal ma ba waxtu sàngam nañ ko bind gis nga ci ñett yépp bu dee ci waxtu la ba ginnaaw suba dañ koy bind bu dee ba weer bi dee la dañ koy bind bu dee ba at bi dañ koy bind kon nag ba fan lañ ko dul bind lépp dañ ko war a bind ilaa ajalin musamman du ba dig bu ñu xam léegi nag bu ñu nee ñun ñëpp yàlla yërmande wala dañuy jéem a indi ay sentiment suñu biir di jéem a gën a baax yàlla problème mooy am mooy li am nii tey ci suñu dund gi nit ilimaan bi day ñëw léegi ne la aw ma dépasse 5000 laa soxla nga ne ah kii di mooy imaamu jàkka ji am amul problème am waaw mu jigi bu la imaam rombe ci jàkka ji du la nuyu di la di ñuulal kanam dafa 10 000 yàlla nga perte daa ko def waaw mu nga ak a bëri du jeex loolu musiba la julli du def loolu li yàlla wax mooy dëgg su ngeen di séq dara ci njënd njaay jëflante lépp bind ak wax ak lu mu mën a nekk nag ci ay tolluwaay bind leen ko ila ajali musamman yàlla mu ne faktubuuhu na ngeen ko bind allahu akbar borom bi subhanahu wa taala mu xaatibullahi taala annaas amma yàlla ñëpp lay waxal lan la yàlla di wax ak ñun mu ne bi usuli diin ci cosaanu diine wal muminuun bi furui dayni yàlla di digal way gëm yàlla yi ci ñuy bind bor mbokk yi kon aaya bi du hasard mu nekk aaya bi gën a gudd ci Qur'an yàlla di woo ñi gëm yàlla yaa man amantum bi ee yéen ñi ma gëm bi ilmi ci sama xam-xam wa xikmati ak sama xereñ wa hukmi ak sama àtte yépp gëm ngeen ko amantum bi annani ana alxalaaq gëm ngeen ne man maay buur bi bind wal quwati almatin maay buur bi am kattan kon if alu bi usulu din kon nag cosaanu diine yi règle yi ma rëdd di leen ko tëralal jaar leen ci fekkee ngëm gi ñuy wax dëgg la yàlla woonu lii ñu ne gëm nañ yàlla ne lii ma rëdd jaar leen ci bi usulu diin mu ngoog nee na aaya bi dafa bokk ci aaya yi nga xam ne dañoo yenu kenu diine ji ad-dayn xaajatun asaasi fi al-alaqaat al-ijtimaaiya bor dafa bokk ci ay règle yoo xamante ne règle relation la ci société bi nit ñi yàllaa leen bind ñu nekk ci kaw suuf di dund di jëflante di demalante di jokkalante kon bu ñuy def dara li ci jaadu mooy ñu bind ko comme ni ko yàlla subhanahu wa taala waxee moo tax yàlla mu ne faktubuuhu bind leen ko ñu ngeen ko bind bu mu néew ba ne waa ji ne jaru ko bul jéem a wóolu waa ji ba ne jaru ko yàlla mi la bind bind waa ji xam leen yéen ñaar moo leen sant ngeen def loolu kon faktu buubu bind leen ko mu ne wal yaktub na bind baynakum seen diggante kaatibun bind kat waaw waaw yéen ñaar bind leen bu ngeen amul ku leen bindal bu waa bu ngeen mënul bind yéen ñaar ut leen fal yaktub na bind baynakum seen diggante kaatibun bindkat uti leen waa joo xam ne dina toog seen diggante daal leen di atte daal leen di wax li ngeen séq nangam ak nangam ak nangam ak nangam la li ngeen ko bind waaw bu kenn ci yéen naan jaru ko nangam nangam dugg fii génn fii di lay loolu kenn du ko def gis ngeen borom bi subhanahu wa taala daf ñuy jàngal lu doy waar mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam jaabir mooy nettali nee na benn waaye dafa faatu biir Medine ñu sang waa ji mu ne fa xasalnaahu ñu sang ko wa xannatnaahu ñu defar ko defar ko parfum defar ko yi ñu ko war a defal wa kafannaahu ñu sang ko mbalaan mi ñu koy robee kon ñett yëpp defal nañ ko ko ñu daal di ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam atayna bihi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ñu daal di indi waa ji ci yonent bi pour mu jullee ko fa qulna tusalli alayhi ñu ne yonent julleel ñu waaje fa xata xuttan summa qaala a alayhi daynun yonent bi jéego ay jéego taxaw ana comme mooy imam bi nit ñi taxaw nañ yonent bi jéego jéego taxaw ci kanamu néew bi daan ne alayhi dayn ndax dafa yor bor gaa yi daan ne ko waaw waaw xam ngeen bor bi ñaata la bi yonent bi ne alayhi dayn jaabir nee na qul naa diinaaraani ñu ne ko ñaari diinaar la yore ñaari diinaar ñaari diinaar te bi ñu ko doon wax fi ñaata la xanaa ñaar dërëm la yor na ñaari diinaar bor de yeneen bi daal di jël ay dàllam fan sarafa daal di wane ginnaaw daal ne jullee leen seen néew allahu akbar jullee leen seen néew yonent bi wane ginnaaw jaabir nee na ma daw dab yonent bi ma ne yonent bi jël naa dinaar bi maa koy fay gàddu naa ko ñëwul yonent bi daal di tourné daal di jullee waa ji ñu suuli ko yonent bi daa toog benn fan daal na jaabir waaw waa ji faatu woon démb yor bor yi ana ana ana bor ya fay nga ko mu ne ko fayaguma ko de yonent bi toogaat ba suba waat ba waat jaabir ne ko waa jaabir bor yi fay nga ko jaabir ne ko waaw fay naa ko xam ngeen bi jaabir ne fa qaala rasul sallallahu alayhi wa sallam jaabir fayal nga sa waaji bor bi waaji naan ne ko déedéet fayaguma ko mu waat ko suba ne ko fay nga ko mu ne fay naa ko mu ne ko waa jaa ngi doog a am jàmm ci bàmmeelam bi nga fayee bor bi mi ngi doog a am jàmm ci bàmmeelam bi nga fayee bor bi la doog a am jàmm képp ku deewaale bor yóbbu ko bàmmeel dañ lay seene ci biir bàmmeel moo tax ñu ne bor hamun bil leyli wa mashaqatun bin nahaar dalay tere nelaw guddi problème la bëccëg boo lebee juróomi nit ci jàkka ji ndax di nga demati jàkk boo lebee fukki commerçant ci marché bi ndax di nga demati marché dëkk bi boo fi lebee fanweeri nit fooy mujj koo seen teggi mbedd ko dootoo nuyooti nga am problème ba cëg soo tëddee guddi doo nelaw bor baaxul kan nañ yàlla musul ci bor borom bi nee na dee leen bind bor yi gis ngeen ki am jàmm mooy ki nga xam ne dafa fay ay borom ku ko am jàmm mais ki nga xam ne fayul ay borom nekkul ci jàmm de mbokk yi loolu nan ko xam ba buñ lebee ñu fay ñu gaaw parce que suñu heure bi mu ngi jot borom bi ne fact buuxu na ngeen ko bind mu ne wal yaktub na bind baynakum seen diggante kaati bun bind kat waaye kooku di bind fal yaktub bil adli na ko teg ci maandute maandute gi mooy lan bila ziyaada bul yokk bor bi cent mille la yemal ci cent yi wala nuqsaan bul ko def quatre-vingt ndax mere bi nga mere waa ji wala bañ bi nga ko bañ cent lañ la bind loo bindal cent bul wàññi bul yokk wala xis bul tricher bul bind bind yoo xam ne kenn xamul dafa ngi ngi pour affaire bi am problème ëllëg yamal ci dëgg gi liñ la wax defal loolu bindal bind yu leer moo tax yàlla mu ne bil adli wal yaktub na ko bind baynakum seen diggante kaatibun bindkat bil adli wala yaaba bu mu bañ mukk mukk mukk laa yem tani bu mu bañ ah wala yaba kaatibun waa ji nga xam ne dafa mën a bind moom dong dëkk bi moo fi mën a bind buñ ko woo mukk mu naan aw ma jot wala munuma ko wala nangam ak nangam di jéem a santage wala yaba laa yam na laa yam tani allazi yuxsinul kitaabata an yaktuba ki nga xam ne moom dong la yàlla wërsëgal moo fi mën a bind na bind waaw xam ngeen lii kay du lu ndaw buñ demee bay forcé ku ci yoonam nekkul kon lii di war a xew xew xew bii du xew xew bu ndaw ba ñuy déplacé nit naan ko jógal demal defi ko yàlla naan waa ji bul bañ demal nga def lii kon kay mbir mee du lu ndaw loolu moo tax nit julli di war a bàyyi xel ci seen seen seeni mbir mu ne an yaktuba na bind kama allamahu llahu comme ni ko yàlla xamalee yàllaa ko dimbali mu am xam-xam ba mën a yëri këyit mën a téye xalima mën a leeral mën a bind noonu yàlla dimbalee ko ba mu am lii na dimbali ñeneen ñi ci buñ ko soxlaa mu defal leen liñ ko soxlaa gis ngeen lii nag war nañ cee mën a jànge lu bare bari ci ku yàlla dimbali dara nga mën ko war ngaa dimbali ñeneen ñi ci loolu buñ la ci soxlaawee mais gis nga tey daanaka nit ñi dañuy xam dara mën ko jàpp seen jàmbur wala ñuy facturer waaw ay facture walal tey rek mbirum jënd kër ak jaay kër daanaka doo ci bëgg a dugg ndax yi ci dox ak yi ci dugg ci courtier yi ba ci notaire yi ba ci ba ci ba ci ba ci daanaka te foo romb ñooñu dañuy tël ci xaalis bi ba borom kër gi sax day découragé ne jaayatuma wala borom terrain bi wala borom borom borom borom yooyu yooyu ay riba la te nit ñi war nañoo xam ne lekk riba day tax du ñu avancé bu fekkee yaakaar na nga avancé ko parce que am nga 4x4 am nga immeuble takk nga soxna am nga nangam nangam bala ngay xam ne amoo dara nga dee bala ngay xam ne lii nga yor dara baaxu dara baaxu ci yàlla la doon jaay rek nga dugg bàmmeel benn borom xam-xam dañ ko doon laaj mu misaal àdduna mu ne àdduna sàngara la ad dunya xamrun àdduna sàngara la dag wax na dëgg de àdduna sàngara la du sàngara nit daf koy naan màndi tàqali ko xelam bu nit bëggee àdduna day màndi day tàqali ko xelam bu dee jigéen ñi nga ni dootul doy bu dee alal ji du doy bu dee waruwaay yi du doy bu dee kër yi du doy da ngay màndi rek di dem mel ne borom rab bu am doole bu màmm mooy comme nag bu rëcc day falaxe rek bu dugg ci marché day falaxe rek noonu la ku màndi ci àdduna di mel xam nga kan la waa ji màndi bi di rees boo duggee biir bàmmeel foofu lay reesee boo duggee bàmmeel nag ba malaaka yi ñëw di la laaj si ñu yëkkati la nga jóg toog ñu teg xadis bi sa kanam lan tazula qadama abdin yawma alqiyama hatta tusal an arbaa xisaal ñu laaj la ñeent ma tëb ñaar yi ñu ne la an maalihi min ayna iktasabahu wa fii ma anfaq alal ji foo ko jële woon point foo ko jële woon nga nar a tontu loolu ba mu jeex ñu ne la après foo ko dugal lii du ay audit de li ngeen dégg fii ci ci ci télé bi ak rajo bi ñu koy wax audit ñu ne président day audit audit audité wunu audit yi ñëwagul audit yi ñëwagul lii du ay audit lii nax la ay léeb la rek xoola ba ba léegi ay ay ay film la rek épisode comme ni ngeen di seetaanee dynastie ak ni ngeen di seetaanee ban film ay dalaas ñu tegal leen benn mu waa après fu mu demee ba mu neex ñu dagg ko mooy lii am nii ci ndakaaru audit yi ñëwagul audit yi bu ñu duggee bàmmeel la ba mun ka rek nag yi ñëw ne la jógal toog nga jóg toog ñu ne la xaalis bi foo ko jële woon ñooñu moom munoo fen foofu moom amul amul avocat amul procureur amul juge ku dul Allah bismillah jógal nga jóg ñu ne la an maalihi min ayna iktasabu foo ko jële nga wax foo ko jële ba mu jeex tak ñu ne la bi nga ko jëlee foo ko dugal foofu lay audit nekk lii dañuy nax rek na leen yàlla jubal borom bi ne fal yaktub na ko bind wal yumlil na dicté allazi ki nga xam ne alayhi dafa tegu ci kawam alxaqu dëgg bi lii mooy alxuraan lii mooy yàlla lii mooy dëgg man ak yow dañuy leb dañuy lebalante maa lay lebal yow yaay leb suñu woowee kenn mu ñuy bindal ñun ñaar yow mii leb yow yaa naan waa ji bindal wala kii leb ci ci ñun suñu xel kan moo waroon wax kan moo waroon wax ñu bind ci xel ah kii leb la waaye yàlla nee na kii bind kii leb moom mooy wax ndax ak xam nga lu tax yàlla waxloo ko xam ngeen lu tax yàlla waxloo kii leb ne ko yow yaay wax ñu bind ko xam loolu kooku war na am cadeau bismillah
day fekkee moom moo yor dégg bi xamante ni moom du yokk du wàññaan moom xam nga ne nit du leb 100000 naan ko bindal 200000 laa leb foo mos a gisee loolu ngay leb 100000 ne 200000 laa leb ah doo doo ko yokk doo ko wàññi kii leble mun naa yokk
maanaam boo ko wàññee wàññi du la jox parce que
soo ko wàññee du la jox nga ne yow ay loo bind mu ne la kat nga ne kat ba nga laa lebal mu ne ah dama juma ah ah waaw nga wàññi loolu loolu moo tax yàlla mu ne yow mii leb yow yaay wax ndax yow la àq bi tegu sa kaw. hmm allahu akbar fal yumlil nañ ko dicté na ko dicté allazi ki nga xam ne alayhi ci kawam la tegu alxaq dëgg yow mii leb di wax nañu bind sàngam yàlla mu ne wal yattaqillaha rabbahu na nga ragal sa borom ci li ngay wax gis nga bu ragal ki ngay leb bu ragal kiy bind bu ragal nit ñi ragalal yàlla soo ragalee yàlla boo lebee fay mais da ngay dégg fii ay nit yoo xam dañ naan ku ñu lekk sa alal perte nga ku ma fayul fii du ma la fay àllaaxira loolu dégg naa ko ba tàyyi man ku ñu fayul fii duñ la fay àllaaxira fii ku ñu loolu musiba la billaahi koo fayul fii àllaaxira nga xam hadis moo ko wax taarifuna man humul muflis xam ngeen ku perte sahaaba yi ne ko waaw waaw ñu ne kan la commerçant bu doon jaay daanu ñoom di ne ko koy perte suñ ko lebalaatee suba mun na jóg ki perte mooy ku julli ba sonn woor ba sonn aj màkk ziyaare saraxe def lu baax dem àllaaxira fekk mu ngi fa yor ay àq saaga na kii pes na kii tooñ na kii jël na àqu kii mu ngi yoral kii bor mu ñëw ñu ne ko fayal ñi te indaalewul dara malaaka yi songu tiyaabaam yooyu mu doon def xëpp ko gaa yi mu yoraloon mu jeexal tàkk te gaa yi des nañ day ngeen de dafa jeexal tàkk ay tiyaaba te ñi mu yoral àq yi ñi ngi des am na fukk ñu taxaw ñu ne ko fayal ñi amul ñu tibb bàkkaaru ñooñu xëpp ko ko am nañu yàlla musal billaay dañuy fo rek bu nu deewee yeew dañuy nelaw rek borom xam-xam waxoon nag annaasu niyaam iza maatu yastayqizuun nit ñi dañuy nelaw rek bu nu dee yeew parce que àdduna li ma doon wax sànq mooy dañoo màndi ñun ñëpp dañoo màndi fi mu nekk nii danoo naan ba ne tat lu sàngara de àdduna lan naan bëgg àdduna ba dootuñu xool lu nu war a def waaw gaa yëpp ay ivrogne lañ ñëpp a màndi ci àdduna allahu akbar yàlla mu ne walaa yab xas bu mu wàññi minhu ci bor bi shay an dara fa in kaana allazi alayhi alxaqu safihan bu dee ki nga xam ne moo yor dëgg gi moom mooy leble dafa xaw a dese safi mooy ku dese safi mooy ku xelam neexut fa wàññeeku ndeysaan aw daifan wala dafa lot allazi laa yuxsin atasarrufaat almaaliya amul expérience ci mbirum xaalis mbirum économique xamul nuñ ciy doxalantee xamul nuñ ciy jëflantee parce que yooyu daf ko dépassé somu xaalis bi am na ñoo xam ne ne tey un million rek problème lañ ci am mënuñu compter loolu la yàlla di wax fii ci baatu safih aw daifan waa ji mën na mën na mën na mën na dese benn mën na nekk koo xam ne amul capacité ci re- gérer xaalis xamul lii tey jii ah wala sax mu nekk xale wala mu nekk jigéen wala mu nekk ku néew doole kon baatu néew doole bi lu ne dugg na ci ñàkk a mën nekk xale nekk jigéen néew doole ñàkk mën a gérer lii kon lu ñuy def su boobaa wa daif al ajiz anil imlaa'i beneen bi mooy mënta leeral lii man kat maag diw ak diw ñu séq lii dafa ñëw di ma leb si nangam ma bëgg ñu bind ko date bi waxtu wi ñaata laa ko jox kañ la mënul loolu kon su boobaa dafa laaj am kilifaam mbokkam bu jël place am daa di koy jàppale ci loolu loolu la du suñu borom subhanahu wa taala di leeralal nii mu ne fa in kaana allazi alayhi alxaq safihan bu dee kii moom dëgg gi dafa dese aw daifan wala dafa néew doole aw laa yastatiu wala mënul al yumilla mu dicté mu orienté waa ji mu bind fal yumlil waliyuhu bil adl ki koy remplacer waliyoom kilifaam na ko wuutu daal di koy bindal orienté waa ji ñu bind ko bind bu leer waliyuhu man yali amrahu mooy ki yor mbiram wa yatawalla suunahu ki nga xam ne moom moom méngoo mbiru safiih boobu wala daif bi ki dese kooku wala ki néew doole kooku ki ko yor gérer ay mbiram kilifaam na ñëw toog palaasam def li mu waroon def mbokk yi incha allah ci kàttanu yàlla dañuy taxaw foofu teg fa sunu baaraam ba samedi bii di ñëw ñu eggale li des ci aaya bi parce que bugguñu ko fatañ fatañee ndax dafa am lu ci nekk te ñun ñoo ko moom buñ ko def rek tafsir yi gars yi def wala yum leen lamin wa ki nga xam ne wala yum li raw yi yow milaad le asasidu seedaleen saa yi day ne ñaari geede mu ne di ñaari loolu baaxul buñ ko def noonu insha allah asalaamualeykum wa rahmatullah
Gracias.